mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar Afrique moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñu di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca Thiès ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moom ma ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. Ousmane Sonko woote woon ak set setal ak njëmbatum garab moom itamit ci weekend bi ci samedi ji ñu génn mi ngi woon fële ci pont Sénégal 92 gannaaw ba loolu yëkkati dafa ay kàddu ñu déglu ci lëf te dellusiwaat. c'est pas la peine de perdre beaucoup de temps à essayer de répondre à ces gens-là. Mmh. parce qu'ils veulent simplement détourner cette jeunesse des objectifs que nous nous sommes mutuellement fixés. Mmh. avons avec cette jeunesse-là pendant ans. Mm-hmm. méthodiquement projet un programme. et nous sommes fixés un cap. Mhm. Je veux dire à ces jeunes de rester focus, concentrés sur ce cap, mhm. de faire bloc derrière les, les leaders qu'ils ont mis au pouvoir, mhm. qui ne sont pas au pouvoir pour en jouir. Nous ne voulons absolument rien venant du pouvoir. Nous nous euh, enrichirons jamais et nous ne tolérerons aucun acte d'enrichissement personnel dans cette gouvernance. Nous sommes là pour servir. pour servir ce peuple qui le mérite. Nous avons un très grand peuple, respecté par le monde entier. Le président de la République a tendance à m'expliquer. À chaque fois qu'il se déplace dans des sommets mmh. où il y a énormément d'autorités étatiques qui se, qui se retrouvent, mmh. mais il fait l'attraction. Tout le monde veut parler au, au, président du Sénégal, féliciter le peuple sénégalais de sa grandeur, de ce qu'il a pu réaliser. Mmh. Et tout le monde s'intéresse aujourd'hui au Sénégal. Et ça, si on en est là, c'est c'est pas le mérite des hommes politiques, c'est le mérite du peuple sénégalais. Et ce peuple mérite aujourd'hui que les hommes politiques que nous sommes se sacrifient enfin pour lui servir ce qu'il attend depuis longtemps, c'est-à-dire une gouvernance assainie, une gouvernance vertueuse, mm-hmm. mais une gouvernance axée exclusivement sur les intérêts des Sénégalais. Que tout ce qui nous appartient, mm-hmm. nous puissions en jouir le maximum. Mm-hmm. Et une fois qu'on parvient à en jouir, que ça fasse l'objet d'une redistribution équitable qui permette de les, le, le, potentiel et les talents, mhm. mais de soulager les populations par la réduction du chômage et par la création de l'emploi. Et nous nous avertions quotidiennement mhm. à, œuvrer dans ce sens-là. Monsieur le Premier ministre. mi ngi noonu loolu samedi la woon ñu gërëm sëriñ Fallou Gumbala mi àndoon dem euh, jëli euh, mbir ya gërëm ko bu baax a baax Assane kon mi ngi noonu Ousmane Sonko nag ginnaaw kàddu mi la ñu bari jàpp ni euh, mbir ya daal léegi mu door ndax wax na ko ci Grand Théâtre waxati ko waxati ko mais saa yu toogee ab débat daal daf mel ni mi ngi fàttali itamit li tax ñoom ñu fal leen ak ci liggéey bi ñu nekk ak fan yu néew Sénégal yi daañu jot li nga xam ni mooy li ñu war a jot ñu fàttali itamit njiital dem dikk maa ngi la koy wax ba nee na moom li mu jot nee li président jot na ko jox premier ministre mu wane ko kon mooy ñoom xam nañ fi réew mi tolloon. waaw bi may rafetlu ab génnam ak it bi nga xamante ni mi ngi koy def waaye bu fekkee ni si wàllum jot geeg yooyu ñooñu moom nañu xaar rek ba gis ko rek fi mu ne nii daal. luy loolu xaar rek. lan mooy loolu. maam ñu xaar ba gis daal fi mu toll nii di ngeen ko jot di ngeen ko jot. dina xaar ba gis ba jot ko. li nga ñu wax da nga ne xaw ma nee nañ waxoon na ko fee waxoon na ko fii waaw waxoon na ko fee waxoon na ko fii waxoon na ko léegi kay nañ génn ñu xool ni nga ko waxee ne waxee ma ko waxoon na ko fii waxoon na ko waxoon na ko waxoon na ko grand théâtre waaw dama ne lim ñu waxoon grand théâtre waaw feddili waat na ko keroog samedi fee waaw wane ni fii ak fan yi néew waaw léegi loolu nañ xaar rek ñun ba gis fi mu ne nii ba gis li jëm si loolu mais bu mu doon mbiri audit yi moom jërut yàkkamti saa bu yoon ñu noppee rek ñun nañ ñu indil ñu xam benn bi nag Moussa Diop moo yay du moom nga wax ma ne moo yay ni ko li li président jot nañ ko teg fi mu xam mu xam fu mu féete moom mu xam lan moo xew. Hmm. ndax fu mu ne nii moom ah gisoo ko fi mu ne nii mi ngi dem si télé yi di défendre procès bi. Hmm. bokkoon na bokkoon na si. coalition dama ne bokkoon na si coalition Diomaye président. xam nga ne épinglé nañ ko. moom waaw ci ban dossier. dossier Dakar dem dikk bi. ah épinglé nañ épinglé nañ ko wax oto bu mu jëndoon kan moo ko épinglé waaye diglu nga ko fii def na conférence de damay ne kan moo ko épinglé yoon épinglé yi yiy génn bokk yiy génn yi ni da doon génn si yosu yooyu ñoo si génnoon moom ci lan lañ ko épinglé lan mooy scandale bi scandale bi mooy ni mu yore woon Dakar dem dikk ah dafa am dañ ni jaaduwutoon ak it oto boo xamante ni jëndoon na ko fa si lañ wax xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg ndax yoon génneegut hmm. ndax affaire yi moom épingle bi da ngay xëy rek toog teg ab si génn ñu ne épingle nañ diw hmm. moom it génnoon na def weddi hmm. ginnaaw weddi na nag bët bi set naa nañ génn ak na génn ma xam affaire yooyu na na ni tekk rek def ne ay moromam am na ñu ñu wax ni épingle na leen ñooñu kenn déggu leen na def ne ñooñu moom Moussa Diop na ni teg seetaan bu fekkee yoon def na liggéeyam ñu ne ay la yéwén Moussa Diop de yoon topp ko dara ndax na mu ko yore woon lépp ñoŋ na ñu tàcc ko bu fekkee am na loo xamante ni nekk na si loo xam ne lëndëm na ñu leeral ko mais jurul muy soññee naan na gaaw na gaaw teñ tuddoon ko ci waaw hmm. ah, xanaa kay daa bëgg xam fu mu féete moo tax mu naan na gaaw rek ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax nag di rafet lu ci réew mi joxal hélas rafetlu taxawaayu kan hmm? taxawaayu kan taxawaayu mes mes Moussa Diouf ah bon ak li nga wax fi yëpp yaa ngi rafetlu taxawaayam ah, waaw jërëjëf alaaji mm-hmm. Ousmane Sonko de euh, samedi ba président Diomaye di waat Touba lu mel noonu def na ko fii maanaam fexe set setal ak jëmbat fexe daal bañ am ab dëkkuwaay boo xam ni euh, danañ fexe ba mu naat ci yu bëree bëri gannaaw ba nag léykati kàddu yi la waaw macha allah mu nekk kàddu yoo xam ni kàddu yu am solo la euh, jëm ci ñi nga xamante ni bi ñooy ñi waral ñoom ñu nekk ci boppu réew mi mu xamal leen ne leen daa am loo xam ne dañ koo xeex ba yegg si kon buñ nangu kenn koo xam ne da leen di divertir ak di leen indil yeneen i wax hmm. nañ focus ci li nga xamante ni mooy li tax ñu fal ñu hmm. rassuré na sax euh, sénégalais yi nee na hmm. li mu tiim gis ko li mu doon wax sénégalais yi tey la koy gën a wax parce que xam na yëf que ni senegal mën na jubbantiku nekk ci réew yi gën. Mhm. waaye loolu yëpp nag du tere tamit sénégalais yëg ñi fi nekkoon niñ yore woon réew mi fi ñu doon jaarale réew mi. Mhm. loolu mooy li nga xamante ni bii mooy yëf xam nga Ousmane maanaam dafa joxoñ ni ma ko déggee wax ji man dafa joxoñ sénégalais yi. Mhm. wax na leen rassuré na leen na leen réew mi dina jóge fi mu nekk mhm. tegu ci yoon woo xam ni yoon wu baax la loolu nag mu fas yéene cee ànd ak sénégalais ndaw ñi surtout ndaw ñi mhm. ndaw ñi dañu war a focus ci mbir mi def benn bloc mhm. comme ni ñu defee ni ñu gën a dëgër nag ñu gën a def benn bloc bañ a déglu lenn bañ a bàyyi xel ci ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi indi bëgg indi ay jiixi jaax waaw man nag ndaw yooyu nag mm, wax dëgg fa yàlla su ma leen di woo dama am na booy yu bari yoo xam ni par exemple dama leen di gis ñu di leen manipuler rek. Mm-hmm. ñuy am yenn façon discours yeeg affaire yooyu dafa am benn wax boo xamante ni bi boo koy def rek yàgg politicien bi nga fi jëlee sorewu leen. Mm-hmm. waaw parce que mënuñoo ñëpp àndandoo xeex benn mbir ba taxawal ko. ba noppi nag yow léegi ñuy defar defar bi laal sa mbir. Mm-hmm. nga naan fii laa nekkoon di xeex. ba noppi may wax ngay ñu ñuy def nii. Mhm. dafa mel ni kon yow bi ngay def loolu jubloo pour ñu defar parce que yow. ci sa mhm. jëmmi bopp bu ku toog wéet ñu wax la ne la lii nga yoroon lii nga dekk nii de wax dëgg fa yàlla jubut. Mhm. wala nañ il faut ñu jubbanti ko nii lañ ko war a defee. war nga mën a sax demander pour ñu xool li nga yor nan lañ ko mën a defaree. boole ko ci defar yi. comprendre nga mais bul ne bett nga ma. fi ngeen fii lañ la tegoon xeex nañ ba sonn bi ngay xeex danga xeex pour réew mu jag ñun ñëpp nañu xam li taxoon ñuy xeex nit ñi li taxoon ñuy xeex leen dong la pour réew moo xam ne réew mu tegu ci yoon la te réew mu tegu ci yoon nag faawu askan wi ñu teg nit ñi ci yoon loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li wax léegi nag leneen li mooy li mu war a kii lañu jox avant goût pour ñu am aperçu ci yëf yi li nga xam ni mi ngi war a ñëw parce que nag li war a ñëw Assane fi mu toll nii peut-être yow boo tëddee nelaw. mais am na ñoo xam ne fi mu toll nii bu ñu tëddee duñ nelaw. waaw parce que am na ñu bari ñoo xam ni def nañ ay tooxi doona yoo xamante ni bii ci réew mi. bu yëf ne bàcc ci mbedd mi. dina loolu parce que nag bul fàtte ni. c'est que ni ñii ñoom ñoo wax ni def ngeen. maanaam ki fi nekkoon moo ne woon sama gaar dañoo def. moom moo ko wax. Macky la ah loolu la moo ne dafa am ñu mu teg concam ah waaw conca waaw boobu la wane ni dafa wane ne mbokkam gaawam yi def nañ léegi nag li mu tegoon concam pour di leen santage la pour ñu yam waaw hmm. mais nag waa ji nee na nee na wax ji la war a bàyyi na te te te hmm? génne ko nee na dinaa dinaa dinaa dinaa waaw non xam nga wax ji boo gisee wax ji wax ji nga xamante ni bi moom lay wax noonu hmm. xam nga boo seetee bii dafa la wax ne la lu yàggatul dara yëf yi dina génn te dina génn parce que Ousmane Sonko am na loo xamante ni bii mi ngi koy wàcc. Mm-hmm. xam naa ni. gars yi nee nañ màggal ga la xaar. màggal noo xaaral màggal gi quand même. Mm-hmm. ñëw de moom. <laughs> yaakaar dara xaju fi. <laughs> feeg màggal dara xaju fi <laughs> buñ màggalee ba ñëw feeg gàmm dara xaju fi. yaakaar war yi màggal gi. Mm-hmm. yaakaaruma ni màggal gi lay xaar de yaakaaruma ni am na ñoo xam ne ñooy waxee noonu parce que boo gars yi waxee màggal tamit buñ jógee ci màggal gars yi da tegeen ñëw muñal ba muñal ba gàmm <laughs> bu gàmm gi ah <laughs> gàmmuwaat na de gàmmuwaat gaa ngi ñëw de mm. bu kii ñu looloo loolu ni koor gaa ngi ñëw donc jàpp ah. naa ni nañ ko far bàyyi yooyu nekk nekk nekku ci nekkuñu ci ñu bàyyi def naa ni mbir mi ñor na mm. pour ñu yàq ko te gëm naa ni bés bi ñu koy yàq dana metti lool ci ñenn yi dana neex lool ci ñeneen mm. ah waaw parce que tey jii nga dénkoon nit ki sa alal pendant douze an muy pasar pasare di kasar kasare ñoom bu ñu sax comme kasar kasare alaaji moor gi sax du am problème xam nga alaaji moor nee na dafa xëy suba di kasar kasare di kasar kasare di. alal li kasar kasare. di yàqate alal. Ah, nee na waaye xëy ngoon gont ci ngoon gi di kasar kasare ba guddi jot. Uh-huh. ma calculer. Uh-huh. xam nga ñaata la kasar kasare hmm. juróom-ñett. juróom-ñett dërëm mu ne xam ne tey jii kasar kasaree na. waaw ñett <laughs> dërëm la yàq. juróom-ñett dërëm la yàq nee na ba alal ji alal ji daal biñ ma ko joxee man ne cay kasar kasaree di xëy di kasar kasaree di kasar <laughs> kasar kasar kasaree ba góor jot. Eh. nee ma calculer xool. ñu ak xam ne tey jii nag. kasa kasa kasaree na. ah, ah. yàqate na. Ah. juróom-ñetti dërëm. waaw ah, kooku de la boobu du Assane. waaw benn waaye la bu yoroon lim bu takk waaye dem fenn ñëwaat waaye lam indaale <laughs> kooku moom du Assane moom. Eh, eh, baal ba caméra fay. donc euh, loolu daal. mooy li nga xamante ni kon daal kon gaa yi mag dina fi bàyyi ñuy kasar ah, kasare ñi yëpp dañ doon kasar ñi moom kasar kasare wuñ kasar kasare alaaji moor gi buñ defoon boobu duñ am problème xam naa ni ñii moom kasar kasare nañ alal réew mi pendant douze ans hmm. ñu téye alal ji di ko kasar kasare léegi nag bés bi nga xamante ni bi ci lañ ñu war a jox résultat yi hmm. loolu moom nit alaaji événement la de impi oh non moo tax ma ne la assemblée dana buntu assemblée dana fees del hmm. ah da fa lay amee waaw ah fa la war a nekk gars yi bu ñëwee ne bëcc seen dossier yi ci kii bi. Hmm. penc bi ku ne wut foo jaar. Hmm. ah pour président bu premier ministre ñëwee buy def déclaration dina wax. li réew mi fi ñu ko fekk. yaa ngi dégg. jalgati gi nga xam ni am na ci. comprendre lan lañ fi fekk ak tamit fan lañ bëgg yóbbu réew mi yan moyen lañ am ak yan pexe pour jéem a génn ci mais dina teg situation bi. Hmm. situation boobu nag muy teg ci pénc bi. dana am ñoo xamante ni bii. assemblée xanaa moom du am naaj su boobaa. Ah. pour caméra bi bii taal. assemblée bi dina mën a dem te hmm? da nga laaj ñooñu ñu bokkal. Ah. Ah, amul naaj fa ñuy filmé. ah topp de. <laughs> keroog ba nekk caméra bi naaj bi da koo jàpp dafa tàng il faut top topp laaj bu tàgg ak caméra bu sedd mu ko yàgg laa bi daal sedd quoi. laaj bee ko jàpp. <laughs> non mais Modou nee wax na dëgg nag loolu mën na nekk de. Hmm. waaw caméra bu tàgg. waaw nee bu tàggee foofu nga yóbbu ko ci kër gi ba mu sedd. waaw. Hmm. <laughs> Hmm. aywa